comme suñu mbokk téléspectateurs yi seen deuxième seen 2STV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte euh, ci seen euh, émission bu mag bi nga xam ne moom mooy Allo Bombay ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar nag kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax a di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi rek te euh, maanaam dañoo tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñu gaaw dellu fi nga xam ne moom mooy seen njaboot ñi nga xam tamit caabi daf leen féete ginnaaw yàlla nañ fa gaaw génn ba dootuñu defati njomb gi nga xam ne moo leen fay delloo loo ci mën a dégg rek kontaan bu baax a baax a baax koo xam ne melomaan nga ak fépp foo nekk ci dendu Afrique gi jàppal ni ala bomba mi ngi lay kontaane bu a a baax a baax ngeen ma loolu waaye man maa leen raw xam ngeen ni dañ nekk ci weeru gàmmu ci weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàgg a euh, teewe ay at yu baree bare baree baree baree lépp loo xam ne gàmmu nañ ko ci rek ak fu nit mën a gàmmoo yàlla loo fa ñaan rek yàlla ko yàlla nangu ci barke Seydina Mohamed yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def loo ci mën a dégg rek ñu ngi leen di ziar nag bu baax a baax di nuyu suñu mbokk indophilie di ngi leen di kontaane bu baax a a baax a baax loo ci a dégg rek defaral sa toogaay nga yokk war nga yokk suukar yokkal naanaa bu baax a baax nee naa la émission bi boo koy seetaan tubarkalla bu la ataaya gaz ndax gaz dafay gaaw da ngay boyal sa fourne tubarkalla wut naanaa ju doy wut warga ju doy wut xorom pole ju doy tubaarkàlla comme ni ko sama di defee mama Binta ba foofu ca Paris la France ak ñoom Ibrahima ñoom Saada ñoom Daouda ñoom Nenne ñoom ñëpp ña nga ca Paris actuellement nii euh, Ibrahima teg na li nga xam ne moom mooy euh, euh, ataay ji tubaarkàlla fas yéene ànd ak émission bu mag bi le nga xam ne moom mooy ana boo mbay ayca maa ngi ciy nuyu nag doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci dend Afrique gi waa Gambia ñu ngi leen di nuyu bu baax a waa Gambie ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax waa Côte d'Ivoire ñu ngi leen di euh, kontaane bu baax a baax a baax waa Cameroun fépp fu doomu Sénégal nekk ci Afrique jàppale Alla Bomboy mi nga nga bàyyi ah, ngeen fa wuti rek yàlla na ko yàlla yombalal ci barke Seydina Mohamed yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax xam lu ngeen fa wuti rek nee na yàlla na a a baax a baax a baax aca numéro téléphone tey damay teel jël appel yi ku woote rek incha allah dama lay jël directement installé ma cax boo wootee rek ma jël la tubaarkàlla ayca maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax xam nga nu ñuy def dañuy seeti téeméeri sapne téeméeri sapne bokk nañ film ne marqué woon na Sénégal yi xam bu ñu nee téeméeri sapne day xel sama xel day dem ci sama yaay eh, maman Binta moom eh, tubaarkàlla moom tamit eh, kenn du kenn la ci man muy nit ku baax a baax tubaarkàlla di nag taalibe Cheikh moom ne mu ne ma Maodo Kane ma ne ko naa mu ne ma nag bëgg naa boo demee nga tegal ma téeméeri sapne morceau bi ci gën a neex mooy taataay tatatay muy morceau bi nga xam ne moom la Ema Malini fecc Eh, te Assa Bochelé way ko mooy morceau bi gën a neex ci biir film bi eh, di tere bere sàpp ne xam naa nag buñ ne imaamali nii suñu xel dina dem ci dabagee imaamali nii xam nga moom tam bëgg na loolu imaamali nii waaye loo ci mën a dégg ne morceau bi lu fi jaar rek sama yaay laa koy jox mama Binta Ba ma nga ca Paris la France taalibu Cheikh boobu eh, moom kenn du moom ci man tubaarikàlla ay ca foofu laay salaamaaleykum mais képp ko xam ne ubbi nga sa télévision di fi seetaan li nga xam ne moom mooy bi Eh, dañuy wax nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que loolu laa waroon a njëkkee xel day fatu mag suñu yaay suñu xarit muy ajaratu Cimbo Ndiaye di mag ci ki nga xam moom mooy Tàkko Ndiaye mi fi jógee bu moom xam nga ne moom tam moo wuyu ji eh, xam ne dalaat na ci kaw indofil yi donc kooku ñu ngi koy jaale képp koo xam ne rek indofil nga te xamoon Cimbo rawatina nag njaal bi spécial dañ koy jaale ki xam moom mooy Mafal Kapoor ndax Mafal ku xam Mafal Kapoor xam diggante bi ak ki nga xam ne moom mooy Cimbo Ndiaye defe naa alxamis ak àjjuma la bis doxul ci diggante bi ah, ñu ngi koy jaale maafaal bu baax a baax a baax maafaal nee na nag mi ngi koy jaale nag képp koo xam ne indifil nga mi ngi lay jaale Cimbo ñaar ndax ku ne xamoon ne diggante Cimbo ak ki nga xam ne moom mooy kooku di maafaal Kapoor jaale ko tamit nag rakkam xaritam góoram muy jibi jaale jaale ko tamit moom mooy eh, eh, kooku di grand Zakaria Rafisi jaale ko waat tamit ki xam ne moom mooy Mamadou Pam ndax ku xam Cimbo xam Tàkko Njaay xamoon Tàkko Njaay xam nga diggante moom ñii alxamis ak àjjuma la bis doxul seen diggante ñu koy jaal tamit Saada Njaay bu baax a baax jaale ko képp koo xam ne rek ci milieu bi nga nekk te xamoon ki nga xam moom mooy ci Njaay waaye ci kanam tuuti incha allah dinaa ñëw ci njaalu Mafal Kapoor spécial ci kanam tuuti incha allah léegi dañuy seeti téere bi de sappune téléphone yaa ngi noonu ku ci jaar jël léegi léegi acca allo salaamaaleykum allo ça va. bien kooku. voilà. dégguma la de dégguma bu baax. ah. allo mën nga wax bu bu baax. waaw. allo. ayca kooku dem na ayca bu keneen ñëwee ma jël ko incha allah ayca mi ngi noonu numéro téléphone yaa ngi noonu ko ci dinaa la jël jël incha allah ayca ñu dem seeti eh, Téréméré Sapné ci diggante Assa Bonchulé ak ki nga xam ne moom mooy kooku di Ema Malini. ayca mi ngi noonu mu ne nekkoon nag euh, euh, téréwéere sapune bu Ema Marini ak ki nga xam ne rek moom mooy euh, Deva Anand xam nga nag tubaarkàlla morceau bi bokk na ci morceau yi nga xam ne siiw na lool fii ci Sénégal waaye nag xam nga ñu ne Ema Marini sama xet nag dana ci sama yaay sama xarit kooku di mama Binta Ba nekk foofu ca Paris la France ne ma nag Modou Kane ma mu ne ma nag man téréwéere sapune jaral na ma lu ne ayca sama yaay maa ngi lay nuyu nag bu baax a baax a a baax ah maa ngi ci nuyu nag bu baax a baax rek Adja Daba Fall sama yaay Adja Daba Fall mu Serigne Babacar mi ngi fii ci Sicap Rydis eh, di nit ku yàlla baaxal moom tamit tubaarkàlla ah Adja Daba eh, Fall maa ngi koy nuyu nag bu baax a baax a baax a baax tubaarkàlla maa ngi nuyu nag jaara eh, jaara jooba juba moom tamit maa ngi koy kontaane bu baax a baax mi ngi foofu ca Sicap Rydis moom tamit jaara maa ngi lay kontaane jaara borom borom borom jigar jaara série Adjey Dev Gan jaara ak bëgg Adjey Dev Gan boo waxee mun la <laughs> Modou Gan damaa bëgg Adjey Dev Gan Adja jaara maa ngi lay kontaane ndax Adja ba njëkk ci ligne bi salaamaaleykum allo neex dëgg du neex. waa eh waa kii du aj waa kii a Adja Sali Pacax. Sali Pacax gi doolu dëgg du neex. mais mais mais mais mais bopp la maa ngi lay kontaanee. eh maa la gën a bëgg dëgg du neex. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm nuyu naa la. sa sa turon sa eh. turon doon Ndeye Pacax mi ngi lay nuyu. eh Ndeye Pacax nuyu nga ko ne ko namm naa ko nammuy pataade. <laughs> e du nuyu Ndeye Diop sama chéri boobu. wallaay ndeysaan. <laughs> waaw kay waaw di jaale waat yow tam suñu maman de kër boobu maman maman Cimbo Ndiaye. wallaay maman Cimbo allah ñu ngi koy jaale ñun ñëpp di ko jaale ñëpp daal macha allah. wallaay ndeysaan baaxoon la ndeysaan sama xarit la woon. wallaay ndeysaan ñu ngi koy jaale ñëpp waay. wallaay ndeysaan yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin na àdduna bu yàggul. waaw waaw waaw dégg naa ne Magu Awa Sadio waaw Awa Sadio incha allah. ca ko koy jaal moom tamit. waaw koy jaale ñëpp ndeysaan waaw yow di la nuyu yow di la ah mais kontaan naa de. kontaan yow di nuyu ah di nuyu sama xarit xaar ma nuyu sama xarit yi. waaw Papis <laughs> Papis Papis Koulibaly. Papis Koulibaly liste bi la bokk dëgg du neex. sali doo war a. borom Gassar Mansour Seck. waaw ci liste bi la bokk. <laughs> Mamadou Kane ci ci ci la bokk. ndeysaan. <laughs> Eh, di nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di la ñaanal. ca kaw ca kanam. jërëjëf jërëjëf ci lu baax di nuyu waa Rési. ndeysaan nee leen Sali Paccax a ngi leen di nuyu. ay ca neex na et eh, xoolal. waaw sunu ko mbalax laa togg tey. ataay bu farfuur. nga ne loo togg sunu. waaw ma ne sunu ko mbalax. non non man ataay bu farfuur. non man sama dëxin <laughs> non man sama dëxin bi laay xaar sama dëxin bi. non am na dëxin lu la neexee yow tamit ka. <laughs> Sali waray waay. naa waa Russie waxal ma waa Russie ne invité naa la ci suñu luxu mbalax bi. Eh, eh, waa Russie invité nañ la suñu luxu. Eh. waaw d'accord loolu ndeysaan. <laughs> kontaan naa ci ñëpp waaye di la ñaanal jàmm sa kaw ca kanam ci lu baax incha allah Sali jërëjëf bëgg naa ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu fan si yëpp. waaw d'accord d'accord incha Sali Facax rek lay doon. <laughs> <laughs> ndeysaan nit ku baax la ndeysaan aca d'accord <laughs> eh, ndeysaan nit ku baax la sali eh, eh, sali ba pula jëri taalibi Serigne Babacar bi la boo koy dàkk da nga koy dàkk diggante Colobane ak ah, bu mag yàlla sa jàmm yàgg maa lay kontaane bu baax a baax aca noonu nag laay yaay waali Ana Sow Poule Jéeri ma nga fi ci néegi Tëngéej maa ngi koy kontaane bu baax a baax baax tubaarkàlla Ana Sow eh, xam nga moom tubaarkàlla bëgg waali ba nga xam ne eh, mu am doomam tuddee ko waali sekk waaw muy nit ku baax a baax Ana Sow tubaarkàlla yow kenn du yow tubaarkàlla eh, lii nag xam naa ni incha allah wax naa ko bijou lii xam naa waali dina ci jot te dina gisanteeg turandoom xam nga dafa nekk nga bëgg nit te ko xamula nga am doom mënoon koo ko waali sekk tubaarkàlla jël ay kayitu juddoom def ci waali sekk kon loolu bëgg fii rek la mën a yam tubaarkàlla wax naa ko nag waali incha allah ci kàttanu yàlla xam naa waa dina gisante ak turandoom ayta ana maa ngi lay kontaane bu baax a baax Kumba Fall ma nga ca kër Mbay Fall maa ngi koy kontaane taalibu Cheikh Kumba Fall Fall Njaga Yaram maa ngi ma nga koy kontaane nuyu nag Fama Gueye nag ma nga ca Tiwaawan ma nga koy kontaane nuyu nag Fatou Ban Touré Fatou Ban Touré moom ma nga ca Médina rawatina nga xam mooy Penda Gueye maa ngi koy nuyu allo salaamaaleykum wa rahmatullah allo. oui. kooku. kooku benn auditeur la. dégg nga waaye allo. benn auditeur bu yàgg la. waaw ça va. bu yàgg a yàgg. waaw ça va bi. ça va sant yàlla bu baax kooku tur bi. waaye man damaa bëgg nga ñu may ci ancien musique yi. dégg ma. ancien musique yi laa soxla. dégg baax ayca bu woote waatee dinaa ko jël ayca foofu laay jaaree nuyu nag Penda Gueye ca Pikine maa ngi koy kontaane eh, nuyu nag eh, Amina Fall Ndiaga yaram madame Ndiaye maa koy kontaane bu baax a baax nuyu nag eh, ngi leen di kontaane bu baax a baax nuyu nag sama yaay maa ngi nuyu nag Abidja ca Zac Mbao sama rakk ji Abidja maa ngi lay kontaane nuyu nag Dior Ngom maman Dior Ngom maa ngi koy kontaane bu baax a baax di voyante ah maa ngi koy kontaane bu baax a baax maman Dior Ngom nuyu nag Abi Diallo bu baax a baax a maa ngi koy kontaane di fidèle connaissance nekk sa di rek ci ligne ok bu amul ku nekk ci ligne bi ñu ànd seeti nag beneen morceau ngi ni di euh, Lahu Kedo Rang xam nga Lahu Kedo Rang dubulool Vinod Khana la bokk na ci film nga xam ne marqué woon nañ fii Sénégal diggante Vinod Khana ak ki nga xam ne moom mooy Dani waaye Hélène mi ngi ci ak ki na xam ne moom mooy Sabana Azmi morceau bi nag nekk na morceau boo xam ne siiw na lool ci milieu indophile daan da ngeen di dégg ma koy teg ci rajo bi lu bëree bëree bëree bëri muy Zidina Karo xam nga boo nee Zidina Karo sa xel dem ci Nafi Fall Imam Ali lay kontaane bu baax baax taalibi Serigne Bamba boobu nga xam ne tubaarkàlla moom moom moo wane lekk nga xam ne moom mooy Seynabou Fall Fall Ndiaga Yaram américaine bu mag nga xam ne Gambien boobu tubaarkàlla nga xam ne moom tamit sama diggante ak moom àllarba ak alxamis la bis doxul ci diggante bi euh, Seynabou Fall Ndiaga Yaram maa ngi lay kontaane bu baax a baax di la ñaanal yàlla guddal sa fan baale suñu kanam nga yàgg fi lool nee naa la man su ma xamee Seynabou ginnaaw yàlla géntu bi faama Gueye tax faama séeri Moda Ndiaye ca États-Unis ndax faama tubaarkàlla kenn du moom tubaarkàlla xale bu baax yiw bëgg ay waajuram tubaarkàlla bëgg boppam nag lool di commerçante bu nekk fii ci marché HLM faama yàlla sa jàmm yàgg yàlla na yàlla bàyyi ak say doom bàyyi ak suuf daal di koy yàq waaye yow loolu daloo tubaarkàlla nit dalay présenté nit ba pare de retourner dellu ci suuf naan la moytul ma diw wala bàyyil ma diw barki Serigne Babacar loolu dalu la nee naa la tey su ma xamanteeg eh, eh, eh, Seyna bu mii nga xam ne tubaarkàlla gàmmeen bu mag bi ginnaaw yàlla jontu bi yaa ko waral kon donc yàlla na bu baax a baax yow kenn du yow ci man tubaarkàlla yow sama diggante ak yow àllarba ak alxames la bis doxul ci diggante bi yàlla na sa jàmm yàgg ci barke Serigne Babacar maa ngi lay kontaane morceau bi nag yéen laa koy may yow ak Seyna bu boo xam ne siiw na loolu fii ci ko ndeysaan mi ngi noonu Zidina Karo abutooru ko yéeraati a aaye gi eh, mu nekk nag morceau la taa bu am solo xam naa nag eh, Eh, gisuma nag sama yaay ajartu Daba Sylla xam naa kontaan gisuma ajartu Aïda waaye xam naa kontaan Asulo Kalpana xam naa gisuma ko waaye xol ba sedd na gisuma nag Amina Chakrabarti naa moom tamit xol na Binu Kapoor eh, gisuma ko waaye xam naa ni xol ba na guy gisuma nag yana ma way eh, ajartu Jiw Jàllo mu Alaaji xam naa moom it gisuma ko waaye xol ba sedd na gisuma nag ajartu Rama Jàllo madame Camara ah mu Seex naa Seex Saadibu xam naa moom it ba sedd na waaye gisuma sama yaay ma ah, ajartu Jooma Sow waaye xam naa moom tamit fa mu nekk xol ba sedd na guy tubaarkàlla xam naa nag gisuma nag ajaratu ndey puy bu Serigne Babacar xam naa moom it eh, fa mu nekk tubaarikàlla ba sedd na la nii xam naa ko waaye eh, eh, ci ma mu séddale ko képp koo xam ne yaa ngi ci admi ma nuyu tamit ñi nga xam ne ma xam ne yaa ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy Rafilata Kisoor académie ma jël nuyoo bi teg ko ci loxo Ajaratu Jiw Jàllo mu séddal ko képp koo xam ne yaa ngi ci bi ma jël tamit beneen nuyoo eh, teg ko ci loxo waa Rafilata eh, Kisoor ma jël nuyoo bi teg ci loxo Ajaratu Daba Silla mu séddal ma ko képp koo xam ne yaa ngi ci groupe bi waaye loo ci mën a dégg rek eh, Barata Ratna for Rafi ña nga ca Paris la France ma jël nuyoo bi teg ko ci loxo Cheikh Yarak Fall mu séddale ma ko képp koo xam ne mag nga te nekk ci biir groupe bi ñu nuyu la ci bu baax a baax a baax ndokkeel la ci waaye loo loo ci mën a dégg rek suba la anniversaire suma papa suma xarit Ismaïla Sall Sall ngaari lamtoor a Guédé moom la ñu dénk sama yaay mama ah, Adjaratou Maguette Baal eh, fii ci néegu Cambérène tubaarkàlla muy nit ku baax nit ku yiw eh, nit ku yàlla baaxal tubaarkàlla moom eh, loo ko naxee ci Alaaji Malick dafay daal di nangu loo woo daal di may invité reer tubaarkàlla ñu toog ci ni ñu toogee di reer tubarkàlla mu wax ma lu bëree bëree bëree bëree bëri ci àddina wax ma fi mu jaar mu ne ma nag ñaar la am ci àddina ma ne ko ban ak ban mu a ma bu weesoo samay wayjur mu ne ma siggil ma siggi yem ci alaaji Malick mu ne ma kii mu a ma geesul ma geesu yam ci Serigne Babacar mu ne ma ñaa ñi laam alaaji Maalik ak Serigne Babacar laam Sall Ngaari laam moom lañ dénk ne laa sama yaay ji tubaarkàlla euh, ajaratu Maguette Baal fii ci néegu Cambérène bu baax a baax a baax a baax a baax a loo ci mën a dégg rek anniversaire am tubaarkàlla suba la waaye dañ koy anticiper euh, wala nga ne alaaji Ismaïla Sall mu alaaji Maalik ma ñaar ñi amul kenn ku ma leen yamale ci kaw suuf ayca maa ngi koy kontaane di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi lool ak sama yaay Eh, ajaratu Maguette Baal sama yaay eh, xam nga moom tubaarikàlla mi muy ku baax a baax waaye ci néegu a a ne moom baax a baax di suma doom di suma xarit di suma lépp tubaarikàlla muy Hawa Balde Balde Anna maa ngi lay kontaane bu baax a baax moom ak mère Diène tuba yaayam nag laay tooñee tubaarikàlla moom sama séer la moom laay tooñee mère Diène moom mi ngi fii ci eh, néegi eh, eh, néegi Tëngéej muy ku baax a baax tubaarikàlla ko yàlla baaxal nee naa ko nag Hawa da ngay jëng rek waaye doo daan tubaarkàlla koo xam te ki heure boo ko maa ngi toggal sama yaay sama yaay moo ma yónni maa ngi fóotal sama yaay maa ngi baleel sama yaay tubaarkàlla nee naa ko kenn du la yërëm barki Serigne Babacar xawaa kenn du la yërëm ngay nit ku baax bëgg papaam bëgg yaayam loo wax mun la sama yaay loo wax mun la sama yaay tubarkàlla loo wax mun la sama yaay fu muy dem ànd ak yaayam tubarkàlla fu ko yaayam teg bu ñëwee maanaam bu ko fi tegee tey bu ñëwee ëllëg fa la koy fekk mu toog muy nit ku baax a baax xawaa yàlla sa jàmm yàgg yàlla yàlla la yàlla bàyyi ak sa papa bàyyi la ak sa yaay nga gudd fan lool yàlla bu ñu séddale dara seen ginnaaw nuyul ma mère Diène ne ko musóoram baax na <laughs> nel mère Diène musóoram baax na tubarkàlla ay tamit noonu eh, ah ma nuyu ci nag eh, eh, nee naa la ki nga xam ne rek moom mooy xam nga incha allah eh, le 10 novembre mooy tombeek anniversaire wu eh, sama doom sama xarit muy Ndeye Fama Dia. ah Ndeye Fama Dia tubaarkàlla moom anniversaire am mi ngi tombé le 10 incha allah bii di ñëw nii eh, sama beneen nag jarbaat tamit day def anniversaire am kooku di Pape Ibrahima Ba moom tamit le 11 la maanaam bu ndey defee le 10 Pape def xam naa nag du yomb tubaarkàlla foofu nag laay jaaree nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Anta Diagne moom tam la incha allah ñu bàyyi xel bu baax waaye daal sama ñaari doom yi tubaarkàlla kooku di eh, Ndeye Fama Dia ak ñaar moom mooy Pape Ibrahima Ba ah tubaarkàlla ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dañuy seeti nag Siré Lévi nga xam ne tubaarkàlla ndem si yàlla si Siré Lévi xam ngeen ni génn na àddina 2018 bi la gaañu waaye moom ak Govinda tubaarkàlla Siré Lévi moo feccandoo kenn ci ci ci industrie cinéma indo lii nag sama yaay laa koy may ak sama papa Ismaïla Sall Ngari ak sama yaay mama maget baal ñoom nag laay may morceau bi tubaarkàlla xam naa nag eh, gisuma sama yaay Maguette Ball waaye sànnee na musal ba tubaarkàlla nee na ma Modou kat ma ne ko a <laughs> <laughs> mama Maguette nee na ma Modou Kane bilaay damaa bëgg sa papa damaa bëgg sa papa lool tubaarkàlla ma ne ko yàlla yàlla xeeb dool yàlla yàgg yàlla sax ay ta bi ngi noonu morceau bi ñoom ñaar laa koy bay Govinda la ak ki nga xam ne moom mooy euh, di Siré euh, ak ki nga xam ne rek moom mooy euh, Siré Devi xam nga Siré Devi wax naa la ko man la Siré Devi génn na àddina ci 2018 bi ci la gaañu fële du Dubaï Eh, mu nekkoon nag actrice boo xam ne tubarkàlla ñëpp a ko jooy waxuma la sax waxuma la sax Inde mais mooy mais monde entier ñoo ko jooy Sridevi eh, xam nga moom sax ni mu demee sax dafa dafa dafa yéeme moom Sridevi tubarkàlla bàyyi ñaari doom amoon jëkkër waaye nag ba léegi tubarkàlla xam nga yëf yi ni mu demee tubarkàlla après dossier bi dañ ko mujjee dañ ko mujjee maanaam up waaw mi ngi noonu daal waaye daal euh, li yàlla xam daal doy na waaye loo ci mën a dégg rek xajoon na fi nag ba ci kanam moom Siré Bi ndax yàgg naa bégal ku ne Siré Bi bégal na ku ne seral na xolu ku ne moom mi nga xam ne moom mooy Siré Bi xam ngeen ne tubarkàlla ca Dubaay euh, euh, fa lañ ko faatee moom mi nga xam ne moom mooy Siré Bi dama la faral di wax ne la industrie cinéma indou bi Susan Singh pour deewee ci la secret yu bëri feeñ ñi ñu doon déclaré dañoo accidente ñi naan ñi dañoo xaru gennaal gi yëpp ndekete dañ leen a rey après ci bi ñu reyee Susan nag ci la ay secret yu bëri daal di feeñ defe naa ne boobu ba léegi yéen a ngi suivre yéen a ngi yéen a ngi seetaan actualité yi waaye nag loolu moo xew en Inde waaye nag euh, nee naa yomal xiyam dina metti lool te yàgg tubaarkàlla <laughs> wala yomal xiyam dina metti lool te yàgg ayca mi ngi noonu euh, ma xam naa nag euh, gisuma nag sama yaay xam naa ni kontaan na lool lool lool lool mama Maguette Baal maa ngi lay nuyu bu baax a baax dina jox sa wàccuwaay nuyul ma sama papa Ismaïla Sall Ngaari maa ngi koy kontaane bu baax a baax taalibi Serigne Babacar boobu nga xam ne moom tubaarkàlla boolewul dara ki wax waaye nag sama doom suma xarit sama complice. ah Ndeye maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax Ndeye Diop jubba eh, Ndeye mu Serigne Babacar Ndeye mu Alaaji Malick maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax nuyu ma toute la famille Diop maa ngi leen di kontaane bu baax a baax ndax Ndeye moom tamit eh, tubaarkàlla moom loo ko naxee ci Serigne Babacar dafay daal di nangu maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax ah noonu lay laay nuyu waate nag ajaratu Mafal Kapoor nee naa la Mafal mi ngi jaale nee na mboolem koo xam ne rek xaritu xari xaritu xaritu Cimbo Ndiaye nga woon te nit ñi xamoon ko ak cimbo nee na nag mi ngi gërëm nag seen magu kër ki nga xam nag moom mooy eh, moom nag la ñuy wax eh, eh, kaaw déedee kaaw déedee kaaw déedee Ndiaye rek lañ koy woowee nee na kooku nag defe naa mooy seen magu kër nee na nag kooku wax dëgg yàlla nee na nag mi ngi koy jaal bu baax a baax a baax a baax a baax moom Mafal Kapoor nee na nag képp koo xam ne xamoon nga digganteem ak ak ki nga xam ne moom mooy Cimbo Ndiaye mi nga moo fi génn moo fi jógee barki Demba Ndiaye nee na mi la koy jaale bu baax a baax a baax a baax baax parce que nag ñun ak li ñuy nekk xale dañu fekkee diggante Tàkko Ndiaye ak Cimbo ak diggante Mafal Kapoor tubaarkàlla ànd bi yàgg na trop ak ñoom Daba Sylla seen ànd yàgg na lool rawatina nag suñu mag suñu papa suñu nijaay muy Alaaji Zakaria Rafisi defe naa wax Cimbo ki nga xam ne moom mooy Jibi Gaajo di nga wax ki nga xam ne moom mooy eh, eh, eh, kooku di Alaaji Zakaria Rafisi defe naa di nga wax tey ki nga xam ne moom mooy moom mooy Ajaratu Ndey Puy wa ah, donc nag ñoom groupe boobu dañoo yàgg ñoom ñaar tubaarkàlla kon donc ñu ngi koy jaar ñëpp yàlla na xëppee aljana yàlla na ko yàlla yàlla na ko ay malaaka yërmaande teeru yàlla boole kook Seydina Muhammad xam ne tubaarkàlla yàlla mën na ko yàlla def xam ngeen ni ñuy defa dañuy dem euh, ànd ak waa régie ñu dem xooli actualité de semaine li gën a fës semaine bi moom lañ xam nga nag euh, Saru Xaan mi ngi doon fête anniversaire am euh, le 2 novembre bi passé waaye fàttali leen tamit le 2 novembre bi passé la Amadou Badiane am un ci suuf xam nga daaw la génnoon àddina le 2 novembre ba le 2 novembre bi bërki démb ci la Amadou Badiane animateur bu mag boobu nga xam ne tubaarkàlla lu ne def na ko ci Sénégal tubaarkàlla nee naa tey ñun bu ñu nekkee animateur ginnaaw yàlla ak yonent bi Amadou Badiane moo tax kon moom tamit nañ ko ñaanal yàlla yokk leeram tubaarkàlla eh, te moom tamit le 2 novembre bi la am un an ci suuf ak ci ñu ànd waa rési ñu dem seet nga xam ne moom mooy actualité de la semaine ayca Dramendra Diol mi ngi noonu Dramendra ku ko xam-xam ne daanaka ba mag lay wane moom tamit <laughs> nee ma ngay wujjeeg Sary Diol comme comme Sary comme Sary Diol wane na këram moom tamit mi ngi wane gis nga moom bu yeewoo nii lay def day dugg ci biir maanaam ci biir salle bi di jàppante <laughs> mi ngi ni bu yeewoo <laughs> da yeewu rek teg ci mi ngi noonu Dramendra gi noonu ndeysaan ci biir kër gi di def cent pas maanaam day dox xam nga va et vient xam nga mag la tubaarkaal toogaay baaxul ci moom bi daal lay wër dugg génn fu ne mu dugg fa roq bu ne mu dugg fa gis nga nii lay def tàllal tànk yi tubaarkàlla bala muy dem ci salle gymnastique bi nii lay def gis nga day wër salle bi gis def 100 pas tubaarkàlla mi ngi noonu drevendra <laughs> xam naa gisuma Papis xam naa di kontaan bu a baax ngi noonu kii doomu ajee Devgan la moom a ñaareelu doomu ajee Devgan moom saa yu yeewoo tubaarkàlla ah, gis nga garde corps bi topp noonu ci ginnaaw di ko surveiller bi dafa am lu yàlla def ci moom xam naa semaine prochaine dinaa leen wax xale bi moom mooy kan parce xale bu ndaw bu toll nii xam nga maamam réalisateur loon papaam ñëw nekk réalisateur moom ak ni muy tuuti nii mu nekk réalisateur am na benn clip bu ajee def gan defoon ci koor gi tama eh, leen doon wax moom moo ko filmé moom xale bii ndax biñ toggee ji waxtaan dafa ne papa ji comme ñun ñaar rek ñoo fi nekk mu ne ko dama bëggoon comme amuñu caméraman mu ne papa ma filmé moom xale bi yug def gan mii tubaarkàlla ñëpp dañoo yéemu ci moom ay moom daal ay miracle daal lay moom ko xam maamam euh, viru def gan xam papaam ajee def gan xam yaayam kaajool tubaarkaal la xam ne xale bi tubaarkaal moom tamit am na lu yàlla def ci moom semaine prochaine dinaa leen gën a wanale xale bi ngeen xam ko bu baax a baax a baax clip bi ajee def gan mujjee def moom xale bi moom moo ko moo ko filmé moom yug def gan aca Richesse Desmouk mi ngi noonu ànd ak doom ji Richesse Desmouk gis nga ko mi ngi noonu ak euh, doomam bu jigéen euh, ñu doxantu ji woon doon def ay ay shopping mu ànd ak xale bi gis nga moom la uuf noonu gis nga mi ngi noonu di dàqante ak moom yaay jaa ngi ñëw na ci ginnaaw tubaarkaal la Richesse Desmouk est-ce que la kii jabar ji Euh, moom mooy ñëw ne ci ginnaaw la muy euh, euh, kooku di ritees Dees Mukk moom tam mu nekk ci xale yi nga xam ne bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax bu ngeen ko gisee di ngeen ko xàmmee moom tamit ndaanaa la ci industrie cinéma indo bokk ci xale yi ñu bàyyi xel am ci moom yaakaar bu baax a baax muy Rites Dees Mukk mi soxna si gis nga ñu defee woon shopping noonu di ñëw acca mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax a a baax moom tamit Rites Dees nga Sanjaa mi ngi noonu di watu gis nga mi ngi noonu xam nga waroon naa la ko keroog mi ngi noonu di changé lu waajee koy wat noonu kii nag mooy mooy coiffeur am bi ki koy wat parce que wax naa leen keroog waroon naa leen ko dafay préparé prochaine film bi nga xam ne moom moo ñëw parce que am na ñaari film kasaa moom la ak euh, sa ak Sani Diol ak ak Salman Khan am beneen boo xam ne tamit bii film bi lay préparé donc rek kii nag moo koy wat à tout moment moom heure bu ak fu mu lu mu mën am rek waa ji moo koy wat gis nga di ko defal style bi maanaam style bi mu bëgg euh, maanaam style bi film bi laaj moom lañ koy defal nii moom lañ koy wat nii moom Sanjay daal gis nga waa jaa ngi koy wat nii tubaarikàlla moom tamit xam nga ndaanaan bu mag la nañ ko xaar na moom tamit ci deux euh, mille vingt et un bi nañ ko ci xaar bu baax a baax moom Sanjay di parce que mi ngi ñëw en force parce nag euh, taneegul à cent pour cent cent pour cent mais mi ngi xeex ak feebar bi am na lu ci jot a lu bëree bëree bëree bëri ne nag comme am na film yoo xam ne jotoon ko signé nag dina ko dina dina dina eggali film yooyu mais nag ñu bàyyi ci bu baax baax ne moom Sanjay Dutt mi ngi préparé nag bi parce que bëri na ci ay ay contrat yi bëri ay film waaye ñu bàyyi ci xel bu baax ba ayca Malika Ar euh, Malika moo ànd ak rakkam noonu moo nekk ci ginnaaw mooy ki sol short bi moom moo nekkoon jabaru Arbas Khan Arbas mooy rakku Salman Khan bi mais xool ko li mu sol xool ko xool ko pour moom considéré boppam comme hindou moom pour moom tubaab la wala américaine gis nga ko gis nga ko li mu sol noonu gis nga ci mère de famille koo xam ne am nga ay doom yu mag gis nga sol noonu gis gis nga ko lii mu sol nii gis nga ci koo xam ne maire la am nekk maire de famille euh, Neha Dupia gëj ngeen koo gis Neha Dupia bëri na ay film yu ne xam ngeen ko mi ngi nii ànd ak jëkkër ji xam nga comme nekk ci ci période corona moo tax heure bu ñu dem entraînement dañuy takk masque mi ngi noonu gis nga moom moom sax dafa mujjee jël poids jëkkëram la àndal noonu Neha Dupia xam ngeen ko bu baax moo nekk noonu ànd ak jëkkër ji euh, maanaam demoon entraînement ba ñibbisi ñuy dox noonu gis nga ñu noonu ñoom ñaar moog jëkkër ji ñu ngi doon di dox di ñëw neexaa duppiyaa gis nga ko moom de nee naa say Diouf neexaa duppiyaa comme olof <laughs> macha allah macha allah mi ngi doon moom de comme sénégalais gis nga ko mi ngi doon ànd ak borom këram tubaarkalla ñuy doxantu noonu eh, eh, demoon nag entraînement bay ñibbisi eh, nga xam ne moom la amoon collection nga xam ne moom la am gis nga otoom yi nga xam ne jot na koo am li nga xam ne ci xaalisam bi nga xam ne liggéeyal na ko boppam liggéeyal gis nga oto bu mu oto bu mu dawal tey bu ëllëgee mu changé beneen amoon na parking oto moom mi nga xam ne moom mooy changé gis nga oto bu nekk chaque jour ak oto bu muy dawal amoon na parking oto moom mi nga xam ne moom mooy Suzanne Singh bëggoon ay collection ay oto te ay oto yu cher la daan dawal moom Suzanne Singh Rajput mi nga xam ne moom lañ faat bu yàggul eh, gis ngeen ko mi ngi noonu bii tamit beneen otom la boo xam ne heure bu daan dem studio moom lay yóbbu gis nga bii tamit ci oto mi la bokk gis nga mu ngi noonu eh, eh, maanaam 4 x boobu gis nga mu ngi ne lii nag jour bi mu deewee la bañ koy waaj a yóbbu pour di ko lakk préparation bi dëkkam lañ ko yóbbu woon maanaam bi ñu koy préparé pour yóbbu ko pour lakk ko mi ngi noonu famille beeg ñëpp nekk foofu tubarkalla ñu koy waajal noonu xam nga ñoom ñoom xam nga lu ñu suul dañuy lakk donc nag bi ñu koy préparé defal yooyu yi ñu ko war a defal yëpp tubarkalla ci lan lañ ko doog a yóbbu ko nee naa la ku dee rek moo perte tubarkalla mi ngi noonu gis nga ak li def lépp ñu mujjee koo may liberté provisoire ak ponkal yi yëpp ñu ñu ñu daal di leen maanaam kenn topp leen ci dara donc nag mi ngi noonu eh, xam naa nag incha allah ba ren di déwén yàlla nañ fi yàlla bàyyi rek ba ren di doon incha allah lépp dina leer nañ ñu bàyyi ci xel mi ngi noonu nag moom Soudan eh, eh, rajo Pout eh, donc nag ci li nga xam ne moom mooy fileray bi ñu ko doon defal acca ñu ànd nag ak waa rek ñu dem xooti beneen morceau acca bu amee ku nekk ci ligne bi ngeen jox ma ko vite fait acca ñu ànd seeti beneen morceau ndeysaan daanal bu mag baa ngi Adnan Sami su ma ko sama xel day dem ci Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye bu baax a maa ngi nuyu waa maa ngi leen di kontaane ñoom ñëpp jël nuyoo bi rek teg ko ci loxo Bracia Diagne Bracia nuyul ma képp koo xam ne yaa ngi ci biir groupe no stress maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax a baax noonu nag laay def jaarane dem ba ca euh, Parcelles Assainies unité 15 fekk nag samay waa kër euh, sama njaboot googu nga xam ne tubaarkàlla nee na la maa ngi ñoom euh, ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tubaarkàlla maa ngi ñoom ñoo bokk benn deret damay jël nuyoo bi rek teg ah eh, eh, eh, ñoom xadi tene ñoom ñëpp maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax tubaarkàlla xam nga maa ngi ñoom tubaarkàlla nee la alxamis ak àjjuma sama diggante ñoom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Serif Maam Bintu noonu nag maa ma nga ca Tëngéej maa ngi lay kontaane bu baax a baax Amma sama xarit bi Alassane Niane noonu laa koy nuyu moom tamit sama grand frère maa ngi lay kontaane bu baax a baax nuyu nag kooku di Pape Mor Cissé maa ngi koy nuyu eh, Pape Samba Diallo eh, sama papa maa ngi lay kontaane bu baax Pape Samba Diallo mu Serigne Babacar maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax baax nee naa nag eh, maa ngi nuyu nag Alaaji Zakaria Rafisi bu baax a baax di ko ñaan yàlla guddal bu baax a baax noonu nag laay nuyu nag suma mag suma xarit kooku di nag alaaji jibi gaajo maa ngi lay kontaane bu baax a baax nuyu nag mboolem koo xam ne rek eh, yaa ngi seetaan sa émission ala boobu maa ngi lay kontaane waaye loo ci mën na dégg rek eh, eh, ziyaarawaat naa nag une fois encore suma papa suma xarit Ismaïla Sall Ngaari mu Serigne Babacar Ismaïla mu Serigne mu alaaji Malick nga xam ne anniversaire am moom suba la incha allah tubaarkàlla yàlla koy yàlla may gudd fan mu yàgg ko feete bu lu bare bare bar mook sama yaay ah eh, ajaratu Maguette Ball ah, mi ci polyclinique tubaarkàlla taalibi Serigne Babacar boobu nga xam ne moom tamit kenn du moom eh, sama yaay Maguette Ball yàlla sa jàmm yàgg noonu nag laay nuyu ki nga xam ne moom mooy sama xarit sama doomu day kooku di xaadim kase nga xam ne xaadim nee naa la réew mi li muy réy réy lu nit gàtt dégg-dégg xanaa war ngaa dégg xaadim kase war ngaa dégg xaadim kase tubaarkàlla lu mu ñawul baaxul la xaadim yàlla sa jàmm yàgg xaadim kase eh, eh, maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu waa waa eh, di leen jaajëfal nag bu baax a baax nee naa nag bala may dem nag may jaajëfalaat nag bu baax a baax kooku di faama Gueye Ndioro Fama Gueye Ndioro commerçante bu mag boobu ci marché HLM maa ngi lay kontaane doomu ndeyu Seyna bu Fall Jaga Yaaram américaine bu mag boobu nga xam ne Gambien bi suma xarit bi maa ngi lay kontaane bu baax a baax faama yàlla sa jàmm yàgg séri moo daa njaay eh, yow yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla ko yàlla defal bu baax a baax aca maa ngi nuyu sama waa koñ <laughs> sama waa koñ ñëpp maa ngi leen di kontaane a a Adama ak Awa maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a a baax yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barke Serigne Babacar pi lof yéen a baax aca morceau bi nag ci tàggoo képp ku am téléspectateur yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barke Serigne Babacar ba àllarba ak jàmm incha